pleine campagne électorale le bi nga comité électoral départemental bi euh, tahawal nañ pour euh, liguer conformément ak le président Makissal Sall dit. ñu avons euh, ñu ànd ñu ànd là c'est important Nous avons wax le ni département fisc bi and nañu don nañu euh, biñu président Macky Sall euh, recevoir firndel nañ ko ko bi ñu ñëwee nañ suñu comité électoral bo xamni ñëpp ci bok ñëpp bok nday ñëpp bok bay ñu double ci campagne bi def nañ nak une semaine de campagne euh, boo xam ni dañ ko évaluer biñ ko évaluer li mu moy li ñu santone yépp wax deug yalla ñu koy def à la base manam nit ñi and nañu ginaaw bi ñu defee première journée bi nga xamni ni altini Euh, bi nga xam ni moo topp ci tabaski bi dem seeti këru diine yi waxtaan ak ñoom sàkku si ñaan euh, pour ñu mën a am ndam ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci département de Rufisque. boobu ba léegi nag responsable yëpp ak militants yi ñu ngi takku di dugg ci base bi di waxtaan ak nit ñi di leen euh, woo ci ñu am ndam ñu votel ñu massivement. ci li nga xamante ni mooy élection yooyu di fanweeri fan ak benn ci waa mois de juillet li ñu wax pour ñu am ko score boobu 60 pour cent yooyu suñu yéene moo ñu dépassé ko sax loolu nag li ñu koy may mooy li ñuy liggéey nii dans l'unité dans la cohésion donc président Macky Sall mi ngi liggéey donc liggéey boobu moom la nit ñi apprécier moo tax ñun ñu am yaakaar bu baax a baax am yàqin ni dina am majorité à l'Assemblée nationale le 31 juillet 2022 li ci des nag ñun ñu ngi continuer liggéey bi à la base euh, nit ñaa ngi ci base bi actuellement ni ñuy wax ñu ngi liggéey ñu ngi waxtaan ak askan parce que euh, affaire bi euh, comme ni ñu koy waxee y a pas photo à côté dafa am koo xam ni li ko tax a jóg mooy liggéey Sénégal mooy tabax Sénégal mooy tax Sénégal doon jam, mooy toppatoo étudiants yi mooy toppatoo baykat yi mooy toppatoo sàmmkat yi mooy toppatoo nappkat yi mooy toppatoo néew ji doole yi mooy toppatoo këru diine yi pour ñu am progrès ci PSE. à côté ñi seen programme mooy lan mooy taal dëkk bi mooy indi fitna amuñu beneen programme bu ñu tegal nit ñi lu dul jaxase waaso yi jaxase xeet yi di fi indi loo xam ni Sénégal bi mu amee indépendance ba tey jii mos koo am lu ñooñu ñooy waa yeewi askan wi ñu lëkkaloo ne yaay ak waawallu wallu ñooñu. ñoo beneen phase bi loolu nag dem nañ ci sax ba léegi comme amatuñu programme ñu ne dañuy tànqal nit ñi ay tëgg ay ay ay kubéer yi ci nekk ay bool loolu jëmalewul réew kanam ñun daal xam nañu ni fi ñu ne mooy fu baax fii mooy li indi jàmm Sénégal mooy liy indi progrès Sénégal mooy liy indi stabilité Sénégal mooy liy indi li nga xamante ni moom la Sénégalais yi bëgg mooy ci biir PSE ñu mëna a egg ci émergence té kenn lañu ñu gis mu man ko incarner ci guddi ñu tollu muy le président Macky Sall